baabul li ab buntu la fi ak aqsaami diini ci xaaji diine diine ju nu nekk dafa tudd al islaam waaye nag ca ko addis ba xaaja woon taa waxoon ko léegi da ko defoon ñetti xaaj xaaj bu tudd al islaam ak bu tudd al imaan ak bu tudd al ihsaan ne diine yàlla ji dey ñetti xaaj la xaaj bu tudd al iman manam gem ci l'islam l'islam lu mu jàppe gem ak lan mooy gëm ci l'islam loolu ke ñu war bi al iman ba ca topp al islam yoon yàlla xàllal ñu gëm ñu war caa aw te bañ tam boole aduna ak alaxira maanaam boole mbirum diine ak mbirum aduna xam nag xàll yooyu te sàmmoonteeg ñoom wala moo tudd al islam ñu koy wax fiq wala sharia al ihsan ñu koy firi rafetal waaye neeñu woon mooy jaam bi àgg ci sell gu toll ne lépp lu muy wax ak lépp lu muy jëf yàlla rek ay tax te sàmm ca teggin ya nga xam ne moom la ci yàlla gën a taamu mu ko cee sàmm kem kàttanam mu ne ñetti xaaj ñi ñooy xaaj ji diine al iman al islam ko defee nag bu njëkkee al mu ne gone yi su ngeen bëggee gëm ci lislaam ci ni ko yàlla santaane yàlla mi nga xam ne momom ñepp momom ndaw momom mag momom lepp ak ñepp gëm googu day bu dee ci lislaam mi ngi takku ci gëm juróom benn yi ndax sax boo teqalee mën naa ko juróom benn waaye juróom benn yi moom ci gàttal ëmb na lépp lu ñu gëm ci lislaam la ci jëkk mooy yàlla ci boppam ñaareel ba malaakaam yi ba téere yi nga xam ne ñoom la wàcce woon ci ñenn ci ay yonanteem ñeenteel ba ma yonante nga xam ne ñoom la doyloo woon wàcc ci ñoom téere yooyu juróomeel ba bis penc juróom benneel nag gëm ab dogal bi mu taal téere bi daa fekk booba bu jegeñ boroomam lool boroomam gërëm ko lool moo tax mu ne dogal bu yàlla bi nga xamee ne lu ma bëgg rek mu daal di koy def mooy yàlla lu ma bëgg rek mu daal di koy dogal fa mu àggoon ci boromam moo tax mu daaneel wayu noonu ne wal qadari lazi yajuudu bil maraam kon gëm ci lislaam moom lu jàppandi lool la ku ko yittewoo rek dal koy mën a jàpp bu baax